صاحب الحق عين الحق طلعة الحق وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضا الله الخالد عن الصحابة أجمعين mbokki jullit ñuy seetaan fii ci seen télévision Misbah TV ñu ngi dellu si waat di leen nuyu ci baatu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu tabaarakallahu di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen balo aq di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu defal ñu tawfiq fas yéene dikkaat ak yéen ci suñu jotaayu daara bi ñu dippee leeru mag ñi leeru mag ñi ñu nekkoon ak yéen toujours ci jàngat ak a jiima gëstu lenn ci jaar-jaaru Mawlana Sayyidul Haaji Malik si radiyallahu anhu suñu jotaay bi passé ñu ngi leen doon wax nii bu ñu bëggee xam tuuti ci jikkoy Seydil Haaji Malick si radiallahu anhu mën nañu delluwaat ci njàngaleem maam Abdoul Aziz si Dabakh maam Abdoul Aziz si Dabakh bi ñuy jàngal dañuy wax kan mooy Seydil Haaji Malick da wax ni kaana radiallahu anhu muhammadiyan xuluqan wa afwan wa safhan dafa wax ni booy xool Seydil Haaji Malick ci doxalinam ak jikkoom ju rafet nee na danga naan kii daal du kenn ku dul sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah laa garwa ndax mom mo waxon ni nak ah man na ma gëna a gudd tànk man na ma gëna yaatu tànk waye wóor na ma ni fu mu yëkkatee tànkam mom yonenti bi su gesto gis ma ci ginnawam ndax dina fa tek sama tànk kon lolu mo nekkon mission sidi haj Malik mooy jikkoom yep jikko yonent bi la sallallahu alayhi wasallam sallam da koy topp xazwal xatwatantil wal uxra bi maanaam dafa mel ni fu yonent bi teggee tànkam rek balaa moo avancé Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu bu ñëwee foofu lay teg tànkam mu ni wa atiqiyan siddiqan wa xubban wa walaan mu ni booy xool Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu maam Abdou mooy wax nee na da ngay yaakaar ni boo xoolee ni dëggoom fa mu àggoon da nga naan kii daal du kenn ku dul Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu nee na ni Aboubacar Siddiq radiallahu anhu doon dëggale yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama noonu la Sayid El Hadj Malick radiallahu anhu doon dëggale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wax ak ci jëf. moo tax nangul wala rax sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu yaakaar naa eh, jarul sarxa bu bari bu bari ndax toujours damay wax nii lu nekk mënees na koo tuumal Seydi El Hadj Malick maa ngi déggul sax al amin barki démb rek ma koy seetaan ci benn waxtaanam yàlla nañu ko yàlla fayal. muy nettali mu nii da benn waaye dafa ñëw ci man nee na di wax ak man ni man daal dama gis ku doon conférence université ba muy conférence ba tudd Seydi Hadji Malick mu ni Seydi Hadji Malick dafa rax sunne yonent bi subhaanallah waaye al amin nee na ba mu ma ko waxee ma ni ko lu tax nga ma koy nettali mu ni ko da ngaa waroon a dagg boppam andil ma ko fii soog ma koo nettali <laughs> mu ni ko ku xam Seydi Hadji Malick ni mu sibe woon bidaa ko xam Seydi Hadj mal ni mu fonki won sunna yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dina am lu nek nga ko meuna tumal bam dess safara des sunna yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam te maam Abdou nee na kaana siddiqiyan moo Serigne Cheikh mi ngi nettali ci tere bi ma len junjoon ci waxtan yi passé muy nettali nee na benn bis dafa toog moom Seydi Hadj Malick ma nga nek ci halqam di jàngale talibe yaa ko wër ndonga yaa ngi ko wër darsantil wal uxra ku nekk ak la ngay jàng ñii wax seeni soxla borom aajo yi ndax moom bu daan jàngale euh, ndongo yi dañ ko daan wër ku nekk ak domaine ba ngay jàng ñii fiqh la ñuy jàng ñii xadis la ñuy jàng ñii luga lañuy ñuy jàng ñii ñi ñi ñii xisaab ilmul falak domaine u xam-xam buñ daan soxla ci jamono jooju rek Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu daf ko doon jàngale ba tax na ñi nga xam ne dañuy doxi seen i soxla am soxla adduna it dañuy ñëw ci Seydi Hadji Malick di ko dis seeni soxla nee nañu toog mu yàgg rek benn waay ñëw nee na waa ji bi mu ñëwee toog ci xalqa bi di déglu Seydi Hajj Malick muy jàngale radiyallahu anhu nee na bi mu jàngalee ba pare waa ji ñëw nuyu ko taalibe Maodo la nee na mu nuyu ko waxtaan ak moom ba pare daan ni ko ah sëriñ bi dey wax dëgg yàlla yàlla defatal defalatina ma lu rëy ci sa barke waaw yàlla defalatina ma ci sa barke Seydi Hajj Malick siggi xool ko ni ko ah loo xewati mu ne ko man dey jóg gi ma jóg di la ziyaar si yàlla defal na ma ci tawfiq boo xam ni bi ma duggee ci terrain bi di ñëw jóge dakaar jóge naa dakaar ba Tiwaawoon kenn laajuma paas dagguma ticket waaye contrôleur bi sax bi muy contrôlé bi ñëwee dama maa tëb ca wóor na ma ni loolu sa barkee tax yàlla defal ma ko <laughs> ay waay bu doon suñ sëriñ tey yi lañ ko waxoon ba mu gën rawatina fekk ko ci digg taalibe ba mu gën nag ko gali ko xëccaan mbubbam waaye déglu leen Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu lan la tontu waa ji ko ko waxee ba pare ni ko mu ni ko nga ni lan mu ni ko waaw waaw loolu de maa ngi ko amee bi barakati cheikh ci sa barke Seydi Hadji Malick ni ko déedéet bi barakati cheytaan la bi barakati cheikh mu ni ko loolu kay yaa ko amee ci barke cheytaani waaye amee wo ko ci barke Seydi Hadji Malick mukk allahu akbar mu ni ko loolu yaa ngi ko amee ci barke cheytaani waaye amee woo ko ci barke Seydi Hadji mu ni ko kañ nga duggoon ci euh, euh, terrain bi mu ni ko heure sàngam mu ni ko terrain bi fan la taxaw mu ni ko place sàngam mu ni ko soo manee dem ba àgg ca nga ka nga waroon a daggee ticket demal nga fay ticket jàmbur ndax li nga def atte ku sàcc dong lañu la war a mën a atte soo ko gisulee nag na nga yëg ni def nga bàkkaar boo xam ni sa digganteeg doomu aadama la waaye sa digganteek sa borom la nga jéglu sa borom subhaanahu wa taala allahu akbar mbokk yi xoolal ma mu jàngale mbokk xoolal boobu modestie mbokk yi xool leen boobu yar est-ce que yar bu mel noonu na ndax sincérité bu mel noonu amati na ban sëriñ ngay gis mu amati taxawaay bu mel noonu pour wax la ni Seydi Hadji Malick doflawul kenn pour wax la ni Seydi Hadji Malick sànkul kenn képp koo xam ni ñëw nga ci moom bëgg koo teg maqaama bu mu àggul mu tegaat la ci sa ànd war na lii mooy sharia ndax du rax sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na àgg ci wax ci wax ji wax ju dëgër ndax daana wax sax ni wa wa wa taariku salaatin li xidmati cheyqihi ka aabidil asnaami bi gayri mirain Seydi Hadji Malick daana wax ni gis nga kin topp sëriñam naan dama koy liggéeyal ba tax mu faat waxtu julli nee na mokki jaamu xërëm ñoo bokk at waaye xoolal li Seydi Hadji Malick benn julli la wax de wa taariku salaatin waxul ku bàyyi julli définitivement daf ni ki nga xam ne day topp sëriñam ni moom lay liggéeyal ba faat waxtu Seydi Hadji Malick nee na jaamu xërëm ñoo yem wa taariku salaatin fi xidmati cheikhihi ka aabidi asnaamin bi gayri miraa'i kon Seydi Hadji Malick mësul rax sunna yonent bi saa sallam maam Abdou ni kon nag kaana eh, atiqan siddiqiya siddiqan wa xubban wa walaan nee na ni mu bëggee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom Maodo ni mu ko déggalee ni mu ko toppe ni mu ko dëggale nee na boo koy jàngat ci fànn boobu danga naan kii daal du kenn ku dul Abu Bakr Siddiq mu ni moom maam Abdou toujours mooy seede ci Seydi Hadji Malick nee nag wa faaruqiyan shiddatan wa yaqinan nee na Seydi Hadji Malick boo laalee diine tar bi muy tar ci sa kaw taxawaay bi muy am dëgër gi muy am nee na dama koy xool da nga naan kii daal du kenn ku dul Omar ibn al-Khattab anhu nee na njàmbaar gu Omar na nga gis ci moom waaw bis boo demee nag bay def lu neex ci yàlla subhanahu wa taala comme yonenteem lewetuk Seydi Hadji Malick da lay yéem waaye bis boo xëttee diine nee na boo xoolee Seydi Hadji Malick da nga yaakaar Omar ibnul Xattaab nga jàkkaarloo ndax tar ga tar du too ko xàmmee allahu akbar yaakaar naa xissa bi ma leen exemple la ci ndax gis nga waaje ba mu xëttee chariatul muhammadiya Seydi Hadji Malick bi mu taxawee ci wetam xàmmeetu ko delloowaat na ko ba mu tegwaat ci charia mu soog a kon nak dëgëram toujours da dan feñ ci bo demé ba nga xamné ne jalgati nga lenn ci jànglem shariatul muhammadiya wabnu afan haya'an wa zuhdan wa sakha'an muni boy xol sidi haj malik ci tab gu mu tabe won waye nga koy xol ci dëdd gu mu dëddu aduna neena da nga nan ki dal du kenn kudul usman ibn affan radiyallahu anhu neena na aduna àddunaam foo ko takk weesu na du moom ma waxon ni ayyuhal bani mahalla diyaafatin alam taalaman ann aljalaa qaribu xanaa lu ma waxoon loolu ca zajrul qulub Seydi Hadji Malick nee na yow mi nga xam ne yaa ngi tabax ay château di tabax tabax yu dul jeex oto yu dul jeex kër yu dul jeex ca loolu ngay def yépp topp àdduna tax nga koy def defoo ko ngir suturaal sa njaboot defoo ko ngir jaamu ci yàlla waaye da nga koy def ngir àddunay kese séddaaj maa rek ne alam taalaman annal jalaa qaribu wa xanaa da nga fàtte ni dee ngi ci sa wet waaw ndax ku sóoraale ni dee mi ngi ci sa wet dëgg-dëgg àdduna ak poñitu àdduna du tax nga fàtte sa borom subhaanahu wa taala moo tax séddaaj maa ku dëdd àdduna la daa nay wax ni budul woon àqu njaboot man Maodo du ma tegale birik ak moroomam bi ci mooy tabam foo ko natt weesu na ko ndax lépp lu mu ma sa yor moom Seydi Hadji Malick daka daan séddale jaamu yàlla yi daawul ci dara dara loo xamante ne nii yàlla subhaanahu wa taala sëggal na ko kon nag loolu yépp ay jikko la yoo xam ne mi ngi ko jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dëddu àdduna dafa bokk ci maqaama yi ñuy xàmmee nitu yàlla ndax mënoo jigee yàlla subhaanahu wa taala ca bàyyiwoo àdduna mënoo jigee xolu jaamu yàlla yi ca bàyyiwoo nag li ñu am moo tax yonente bi sallallahu bi waa ji ñëwee ci moom ni ko dama bëgg yàlla subhanahu wa taala sopp ma nu may def ba yàlla sopp ma mu ne ko autorité dunia yuhibbuka allah soo bëggee yàlla sopp la da ngay bàyyi àdduna soo bàyyee àdduna yàlla sopp la bàyyi àdduna tekkiwul nii bul sol sol gu baax bàyyi àdduna tekkiwul bul dëkk kër gu baax waaye bu la bu la matérielu àdduna ndox sa diggante ak sa borom kooku mooy ki dëdd àdduna ndax toujours damay wax ni dëddu àdduna war nañ ko jàngal nit ñi ñoo xam mooy lan dëddu àdduna nekkul nga sol yére yu bon man nga sol yére yu bon fekk yaa gën a bëgg ñëpp àdduna da nga ko amul dëddu àdduna nekkul ci nga dëkk ci kër goo xam ne kër gu yemamaay la man cee dëkk fekk da ko amul dëddu àdduna xol la ki am lépp ca loolu doxul digganteem ak boromam kooko ki dëdd àdduna rijalun la tulhihim tijaratun wala bayun an zikrillah kon nag Siraj Mali radiyallahu anhu ko dëdd woon àdduna xam naa kon mi ngi mel ni suñu technicien mi ñu wax ne li ñu amoon ci waxtu jeex na ñuy tek suñu baram fofu di len dox jox di daje suñu jotaay bi di ñëw inshallah taala di ñaan borom subhanahu wa taala mu defal ñu dégg ak top bo la ñu min alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana wa mimman iza du'a ila allahi labbuna wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ومفتاح الخلود وختم الخلود